2015 ba léegi euh, mosuñoo tëbal benn at euh, juróom-ñaareelu édition bi euh, waaye suñu borom moo dogal bu daaw ak bu ren mu daje ak mbas mi daaw gis ngeen niñ ko defee woon ci andi handicapé yi ci suñu mbokk silmaxa yi ci yu mel noonu lañ ko defee ci anam biñ ko defee woon pour dëppoo woon ak li nga xam ne moom la ñi yore wàllu paj mi santaane woon Euh, ren ji ñëpp xam nañ ne dafa am lu mu dajeel euh, muy euh, mel ne feebar bi dafa nekk di jógaat ci anam boo xam ne danay farata lool ñu aaru nit ñi jël seen matukaay ba nga xam ne nit ñi danañ leen mën a ñàkk ndax nag ñàkk bi daara dara dara gënu ko ci alors loolu moo waral tey ji ñu def lancement bi euh, lëkkaloo nag ak euh, district bi dëkkaloo ak euh, région médical dëkkaloo ak ñi nga xam ne buñ daan def journée médicale ñoom ñoo ko daan taxawu rawatina professeur Madoki ak équipe am ànd ko ak ñi nga xam ne ci biir mairie bi ñoom ñoo yore euh, affaire sociale te mu bokk ci direction générale bi nga xam Fatou Kiné moo ko jiite mais ku mel ne euh, Sini euh, Thiam Diop mii di ko di ko di ko toppatoo moom ak Amadou yore Diop alors loolu lépp nag liggéey boobu bu ñëwee ba fii dañ ci am aussi ñun ci jàppale rawatina fondation Sonatel ak yeneen partenaires yoo xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi te kenn ku ci nekk xam ne wér yaram farata ci am réew ñu dugal ci seen loxo di ci jàppale cees kon juróom-ñaareelu édition bi Ah, dañ ci wéeru rek pour woowaat nit ñi ne leen ah, nañu ñàkku parce que lu la ci waay man ci wax lu dul demal ñakku mi ngi ci nax la ah, kenn warta mën a xalaat ci àdduna bi Russie chinois yi américains yi français yi allemand yi arabe yi ñoom ñëpp àndandoo complot askan euh, askanu àdduna loolu moom loolu xel munu ko nag euh, te it lii nii ci lu ñu xamal suñu bopp ñoom ci seen bopp lañ ko tàmbale euh, kon ñun ñii xam nañu ne feebar bu fi mas a jaar ñàkk ko fi jële beneen bi mooy ñi nga xam ne ñëpp ñoom ñoo lay wax bul ñàkku ndax tubaab yi nii tubaab yi na mais ñoom garab bu ñu bëgg a faju ci biir pharmacie lañ ko jënde dañoo fekke fu ñu ko defaree ak nu ñu ko defaree loolu mooy loolu mooy dëgg cest à que tey jii ñun ñii am nañ fi ñoo xam ne ay autorité wu euh, médical lañu am nañ fi ñoo xam ne ay borom xam-xam lañu nekk ay sénégalais bëgg askan wi comme ñoom jàng xam sa di saytu aussi di xool li ñuy def ci doomu aadama yi lu mu doon mais ñooñu aussi du ñu taxaw benn yoon di seetaan ñuy jël di def ci sénégalais yi loo xamante ne da leen di gaañ maintenant nag aar leen day farata nit ki bu fekkee ne aar ko day farata. lii responsabilité wu autorité yi yi nga xam ne ñoom ñoo jiite Sénégal mooy fexe ba sensibiliser nit ñi pour que nit ñi jëm ci loolu lii la ñu bëgg vraiment jaare ko ci suñu journée médicale yi pour sensibiliser waat nit ñi maintenant nag fas nañu yéene vraiment ci ndimbalu euh, euh, ministère bi nga xam moo yore wàllu santé euh, lëkkaloo ak région médical bi lëkkaloo ak district bi pour jéem a xool nan la ñuy defee benn camp fii comme ni mu amee ci Dakar benn camp boo xam ne en permanence Euh, nit ñi danañ ku soxlaa ñàkku di nga mën a ñëw ñàkku waaw non ñu ngi fi ñu toll suñu dañoo décider ak ñoom suñu kemtalaay kàttan ku ñëw ñu ñàkk loolu lañ bëgg voilà wax nañ leen suñu bëgg-bëgg wax nañ ko autorité yi yore loolu pour le moment nii gisaguñu lu dépassé liñ man léegi lu ñu fi dikk daal bu soobee yàlla ci journée médical bi ku ñëw ñu ñàkk waa dama xam nga lii nii ñun bi ñuy doog a ñëw euh, fii ci mairie bi gis euh, grille avaloir bi affaissé ñëpp gis nañu oto bu fi daan jaar ni muy demee waaye kenn ku ci nekk ak sa liggéey xam nga maire du moom moo yore équipe bi war a defar loolu loolu waa AGEROUTE ko war a defar léegi ñu leen di topp ñoom itam nag dañuy am ay programme léegi mu donte yëg nañ ko mu yombu leen woon alors ñun mënoon nañ dem seete ay nit ñëw ne leen defal leen ñu ko mais bu boobaa du suñu wàll te boobaa du ci amee benn jafe-jafe suñu responsabilité lay doon ñu di ko topp nag di ko topp ba suñu borom dogal ci jamono yu mujj yi ñu am ci seen accord waaye comme dafa am liggéey yoo xam ne dañ ko sant Jean Lefebvre ci biir dëkk bi pour defaraat tali yu bëri tegaat ko ci yoon léegi ñun ñu wax ak waa Jean Lefebvre ñëw ñu def ko ak waa service technique bu ville ñu saytu ko liggéey nañ ko ba mu yegg euh, il fallait attendre trois semaines pour que euh, mu wóor ne bu fi ay camion jaare du yàquwaat loola nag euh, mel na ne trois semaines yooyu mat na moo waraloon tey jii ma ñëw ubbi ko pour nit ñi mën koo jariñoo ñuy ñaan yàlla rek nit ñi euh, nii ñu ko defaree feneen foo xamante ne mën nañ ko defaree incha allah ñu jubal ci. teewaay tey fii ci ville de Thiès tey ku ko gis xam ne journée médicaux yi nga xam ne le maire de la ville Talla Sylla moo ko initié woon di ko def ci durant mandat bi mu fi nekk bi tey di septième édition journée médicale yi tombeek euh, période pandémie di Covid 19. le maire de la ville ne du ñu def lenn te vaccination ne fi moo tax tey journée bi yëpp ci vaccination Covid lañ ko def euh, moo moo waral lii ñuy gis tey di septième édition bi di woo toute la population de Thiès à ce que ñu ñëw vaccinewu parce que c' la meilleure solution bi nga xamante ne ni moom rek moo fi mën a jëlee pandémie bi muy Covid 19. di woo la population de Thiès la population du Sénégal la jeunesse. que ñu dem vacciner wu ji parce que mooy la meilleure euh, solution. nag tey dañoo ñëw nag fii ci journée bi nga xam ne monsieur le maire ñoo ngi ko koy sant di ko gërëm ndax moo ko initié chaque année mu def ko bii mooy septième édition ren nag mu ñëw nag indi vaccination mooy consultation gratuite yi mu daan def ñuy sensibiliser nag waaye Thiès na ñëpp ñëw ñakku ñakk yi am na solo loolu daal lañ bëgg na ñëpp génn ndax defe naa daal fagaru moo gën faju te buñ nee vaccination bu ñu ko déggee ñuy wax mooy ñàkk ñàkk mi nga jóge ci ñàkk ndax ñàkk boo ko disee nga am sa tool bàyyi ko noonu ñagoo ko lu dugg yàq ko boo ko ñagee nag dara du fa jaar ñàkk mi ngi jóge ci ñàkk na ñëpp génn ñaw ñàkku loolu daal ñu bëgg ñàkk yi moom am na solo baax na torop dara nekku ci man mi wax ak yéen ñàkku naa depuis mois de février aw ma ci benn problème ñi toog fii ñëpp ñàkku nañu macha allah ñun daal loolu daal la ñu bëgg sensibiliser na ñëpp ngeen ñàkku fagaru moo gën faju loolu daal laay wax waa Thiès ñuy remercier nag monsieur le maire Talla Sylla ci initiative bi mu def ndax vraiment lii moom dañuy naan nar ca kaw ca kanam rek kontaan nañ ci moom vraiment. 30 euh, juillet 2021 vraiment mu nekk euh, journée médicale yi nga xamante ne maire de la ville de Thiès. depuis euh, septième sept édition mu ngi koy def ren di sept ans ci ren mu nekk nag ak contexte tey boo xamante ne Covid la muy Covid wax dëgg yàlla ñu def ko nag tey spécialement camp de vaccination spécialement loolu mooy li nga xamante ne moom la ñuy def tey pour vacciner nit ñi ndax euh, troisième vague bi mi ngi def ay ravage te vaccination rek moo fi nekk kon tey nag wax dëgg yàlla en collaboration ak district sanitaire ak médecin chef régional ak le ministère de la santé ak la fondation Sonatel ville de Thiès mooy maye ci turu maire dose de vaccin yi population yi depuis ce matin nit ñaa ngi ñëw fi mu toll nii vacciné nañ plus de 200 personnes et ça va continuer jusqu'à 16 heures 17 heures euh, médecin chef nee lu fi nekk rek ci ay nit danañ fi joxe dose yi toll noonu ñu vacciner nit ñi su ko defee nit ñi prévenir u macha allah ci Covid bi te ñu moytu nag def le gestes barrières takk masque yi xam nga ñu takk masque yi takk masque yi laal gel hydroalcoolique yi def geste barrières yi maanaam moytu dajaloo yi loolu rek moom la ñuy ñaan ñëpp comme ni ko état du Sénégal di ñaanee ministère de la sante nekk ci ñun ñaan yàlla musal ñu ci mbas mi ñuy rafet lu wax dëgg yàlla ñëwu ci Cees yëpp ndax lii am na solo ndax nit ñi bëgg nañu faju bu ñu leen sensibiliser rek ñu mën a vacciné wu. vaccin yi amul problème damay faral di wax ne depuis ñu nekk xale ñun tubaab yi ñooy liggéey seen vaccin duñu ko jox wax dëgg yàlla ñun mosu ñoo defar vaccin. donc vaccin yi ñu vacciné woon suñuy maam vacciné wu ci suñuy ndey suñuy baay suñuy doom war ci vacciné wu ñu aussi ñu war a vacciné donc loolu moom rek moo am solo ñuy jaajëfal ñëpp di féliciter le maire de la ville ci loolu wax dëgg yàlla initiative bi am na solo. ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci liggéey bi di ko ci jàppale mooy secrétaire général ak euh, directrice des affaires sociales madame Fatkine Dia secrétaire général Ibrahima Bakhoum di remercier aussi la DC wax dëgg yàlla Pape Latir Ndiaye ak euh, vraiment tout le staff du maire tout l'équipe toute l'équipe municipale bi ci jàpp wax dëgg yàlla ñuy féliciter ñëpp encourager ñëpp ñoom Virginie ñoom Doudou directeur wax dëgg yàlla ñëpp jàpp nañ ci kon ñi ngi sant bu baax di sant yàlla bu baax ci initiative bi nga xam ne jël nañ ko tey ci journée médicale yi jërë ngeen jëf